lënd bi passé lu xew lenn kese la mooy ginnaaw ay weer ci ginnaaw depuis décembre ñuy bind ay lettre di ko jébbal ki nga xamante ne mooy suñu ministre tutelle di monsieur Cheikh Omar Anne pour expliquer ko jafe-jafe yi nga xamante ne bachelier yu am bac 2019 ñu ngi ci septembre 2020 ñu toll ci 1348 bachelier kenn orienté gu leen ba ñu doon def bac 2020 pare nañ bac ba seeni résultat génn bientôt ñu ubbi plateforme Campusen pour ñoom ñu mën a inscrire ñu koy xeex boobu ba léegi ñu koy bind ay bataaxal te mënuñ fexe bu wut saafara ci jafe-jafe bachelier yooyu. beneen bi mooy les étudiants de l'UVS ñu koy wax université virtuelle du Sénégal am ci 48 heures ñu recensé nañ mille cent 1129 bacheliers yu ñu orienté UVS ba pare déclaré leen non éligible maanaam ñoom dootuñu jot seeni outils de travail machine clé de connexion. ginnaaw nag ci ay weer yéen journalistes yi sax mën ngeen toog fii def conférence de presse boobu def nañ conférence de presse bu nekk def nañ point de presse bu ne def nañ fi ay marche dem nañu rencontrer avec les agents du ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation voie pacifique bu nekk jël nañ ko on a été responsable sur toute la ligne mosu ñoo dégg ñu sànni xeer musu ñoo dégg ñu taal pëna waaye kenn faale wuñu parce que tout simplement ñu mu concerné ces milliers d'étudiants ay doomu baadoola lañ parce que tout simplement ñu mu concerné ñoom la seen yaay di yeewu 4 heures du matin di dem marché au poisson di jënd jën di dem ci marché local yi di ko fa jaay concerné wul doomu ministre concerné wul doomu député concerné wul doomu euh, procureur wala doomu suñu recteurs yi nga xamante ne ñooy les recteurs d'université moo waral ñu waroon def benn point de presse leen di passé ñu jëloon décision ne dañuy def un point de presse sur la VDN plus précisément côté siège PDS point de presse pour wax askan bi que ni autorités yi depuis boobu ba léegi ñu ngi waxtaan ak ñoom mais bëgguñu ñoo dimbali parce que seeni i doom bokkuñu ci. bu ñu waree génn nag man université la logé ma war a génn université pour rejoindre sama camarade yu nekkoon sur la VDN dama génn grande porte jot appelu le coordonnateur des bacheliers non orientés muy euh, Souleymane Diouf mu ne ma foo leen nekkee ma ne ko maa ngi grande porte taxaw man ak beneen camarade mu ne xaar leen ma ma ñëw ñu ànd parce que taxi laay jël. comme ça ci laa jégee grande porte bi dem dans l' autre sens parce que su ma taxawee grande porte voie boobu mooy jëm ville et comme dañun VDN lañu jëm fallait que ñu yombal ko tâche bi jéggi pour dem ci beneen voie biy jëm VDN bi ñu jéggi benn gémi parce que chaque jour université ku am seetlu dina gis na dem am oto gémi taxaw foofu même su dara xewul dañuy ñëw rek taxaw foofu ba vingt 23h minuit ñu soog a dem bu ñu bu ñu jéggee ci kii bi ci territoire bi benn triangle bu séparer les deux voies yu war a jëm Colobane nekk ci diggante euh, boutique orange bi séparer boutique orange ak GMI yi fu ñuy gaare seen oto triangle bu ndaw boobu lañ taxaw parce que oto yi dañ doon circuler ñu waroon jéggi mais dañ doon xaar oto yi taxaw GMI taxaw fële interpeller un civil taxaw fu mu taxaw ne ma hey ma ne ko wii maa ngi jégalu ci baat bi mais fallait ko ma wax ko noonu mu ne ma dégage noonu la ma ko waxee man tontuwu ma ko parce que non seulement nuyuwu ma ba pare il a utilisé un vocabulaire un peu déplacé mu jéggi ñëw fekk si ma ne ma xanaa du yow laay wax nga dégagé ma ne ko ah je ne vais pas mettre ma vie en danger pour exécuter yow pour exécuter la alors que oto yee ngi circulé munumaa jéggi tànk oto yaa ngi circulé mu téye oto yi oto yi taxaw mu ne ma maintenant dégage toujours moo dégage ma jéggi dem ci trottoir bi di dem mais amoon na benn li ñu policier bu nekk juste à côté kenn ci ñoom ne yow maa ngi jéggulu ba léegi ci kàddu yi mais nu ma ko waxee laa bëgg mu leeree noonu mun a ma yow imbécile kii di la wax dégage ngay am looy looy looy looy xaar ma ne ko un takkul masque deux nuyu ma troisièmement il a utilisé un vocabulaire irrespectueux envers quelqu'un parce que bu dul dara sax man nit laa te waroon na ma mën a respecter lii laa ko tontu ñu sëkkatoo ma dal sama kaw commencé ma dóor ay mbéj yu saf sàpp yóbbu ma ci ginnaaw seen camion bi ils étaient presque dix éléments gémis sur moi sur un civil un étudiant bu yorul xeer yorul puso ñoom ñu armé wu jusqu'aux dents parce que dañoo foogoon ne grève gay am foofu ñu sol seen tenue yeeg seen tout di ma mbéj di ma insulter de mer saaga ma de tous les noms d'oiseaux insulter ma ñii kajji ma ci biir kii jóge fële jël lance grenade dóor ma ko ci ndigg ba tey maa ngi nii sama ndigg bi dafa am problème toog naa deux jours yoo xamante ne maa ngi jégul dew ma toilette parce que munu sama ndigg dafa am problème ma dem ba pare ñu yóbbu ma fi nga xamante ne mooy commissariat point e. bu ñu fa demee lu ñu joxe ñoom bu ñu leen entendre dañu ne man maa leen doon saaga comment un civil bu am fit gis ay policiers armés jusqu'aux dents am fitu di leen saaga sa pose problème beneen bi ñu ne man dama doon def rébellion avec violence koo xamante ne yow yoroo xeer yoroo puso nooy defee rébellion avec violence ñetteel bi ñu ne dama def dama refus d'obtempérer dañ maa sant ma bañ loolu lañ teg comme charge sama kaw loolu la mbir mi demee bi loolu xewee waa sama camarade ñoo lànk yi ñëw nañ fa engagé nañu avocat déféré nañ ma le mardi parce que falaa fanaan dem naa à la dem euh, yóbbu nañ ma hôpital Gaspard Camara parce que normalement Abass Ndao laa waroon dem finalement vers 23h minuit ñu yóbbu ma Gaspard Camara ma doon laaj li nga xamante ne mooy certificat médical kenn defaruma ko mais juste notu notu médecin médecin bi moo bind benn not ba léegi man teguma ko bët ordonnance bi ma médecin bi bindal foofu teguma ko bët ñoom ñoo ko garder nee nañ dañ ko boole dossier bi mais ordonnance kay c'est à acheter nit buy souffrir am ay douleur interne ñu bindal ko ordonnance nga ne doo ko teg bët dañuy jël ordonnance bi boole ko kii bi parce que tout simplement xam nañ ñu lu ñu def teguñu ko ci dëgg teguñu ko ci yoon il a fallu que bu ma demee ñu may ma liberté provisoire ma dem seetiwaat médecin mu daal di may bindal ordonnance seetiwaat médecin pour mu mën ma defal certificat médical ma am repos 15 jours ce qui veut dire que ni dóor yi métti na duma yi métti na trop lii moo xew keroog biir buntu université du leneen lu fa xew am na ay caméra de surveillance yu nekk foofu nañ koy utiliser dinañ xam ni bu baax a baax que rébellion bu ñu may tuumal amu fa te suba dinañ ma àtte je m'en profite pour inviter pour vous inviter vous la suba à 10 heures Sénégal mooy dëkk boo xamante ne policier da lay jàpp violenté la ba pare yóbbu la procès suba dañ may euh, lañ ma war a àtte au niveau de du tribunal d'instance bu Dakar dañ may toppee rébulion et refus d'obtempérer outrage à agent loolu lañ may toppee donc suba à partir de 10 heures je vous invite pour que ngeen ñëw au niveau du tribunal d'instance fekkee li nga xamante ne mooy àtte boobu pour l'instant falaa ci mën a yem am naa suñu certificat médical mi ngi nii ordonnance yaa ngi nii bu subaa peut-être dinañ ko dinañ am occasion wan ko juge bi et que lii moom bëgguñu ko bàyyi mu sedd parce que ñun n'est plus à l'abri nuñ ma ko defee suñu bàyyi mu sedd bu ëllëgee ñu fekk ñun suñu biir kër parce que tout simplement am nañoo état ci nu muy doxalee ñu fekk suñu biir kër dooñu bu ñu dee te du mujj fenn. plainte bi day dugg incha allah. plainte bi moom déjà rédigé rédigé nañ ko suñ ko dugalul tey suba ci biir kii bi dinañ ko dugal ci kii bi